ko nuyu di ko ziar ko ñaanal yàlla yokk ko tawfiq ak taysir defal ko ngërëm ci liggéeyub sëriñ tuba bi defal ko mbokk yi ci daara ji yépp kon ñu fas ci di almuridiya kon bind bi ñu mujjoon a jàng sëriñ bi mi ngi ci lu jëm ci wàlluk al ibaadatu wal xidma mel na ni xaw na ce yaatal ndax ca bind bu njëkk ba abdullahi wa xadimu rasul moom lañ doon jàng ci bunt bu ñaareel ba it mu doon gën a leeral lu jëm ci ibaadatuhu bunt bii ñu war a tàmbali tayit ci wàllu googu la ba tey muy ibaadatuhu wa xidmatuhu ak jaamu yàllaam ak liggéeyalam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tàmbalee ko ci li sëriñ bi wax ne wahabta lii kaw niya abdan muxlisa fi sirri wal jahri xadiman muxlasa wax suñ boroom ne ko may nga ma ma nekk di sab jaam bu sellal ci lu nëbb ak ci lu feeñ di liggéeykatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu sellal ci lépp lu dul noonu wax ba tey ne ibadatan laka wa xidmatan lahu li wajhi man ala alwara faddalahu li may def daal muy tagg yeeg julli gi ci yonante beeg yeneen jëf yi yépp dama koy def ngir jaamu la yow yàlla ak liggéeyal sa yonante bi te sa jëmm rek tax yow mi nga xam ne yaa ko def mu gën ñëpp wax ne ibaadati bi xidmati lil jut bi darki kulli fawti samak jaamu yàlla ci liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam day sax ba ba ba may faatu ñaan suñ boroom nag mu defal ko dabaatal lépp lu ko rawoon moo tax sëriñ bi taarif wax ne yamukaayu jaamu yàlla mooy tàmbalikaayu liggéey jaamu yàlla liggéey la waaye safaan bi lu wér la ndax ku topp yàlla topp na yonente bi sallallahu alayhi wa maanaam bu ñu waxee ne sëriñ bi da doon jaamu yàlla ak di liggéeyal yonente bi wala ñu ne sëriñ bi li mu woote mooy al ibadatu wal xidma jaamu yàlla ak liggéey yonente bi loolu firiwul ne waxtu yi nit ki dañ koy seddale ñaari xaaj xaaj bi nekk bu muy jaamu yàlla xaaj bi nekk bu muy liggéeyal yonante bi waaye waxtoom yépp jaamu yàlla la waxtoom yépp liggéeyal bi la maanaam bis bi ñaar fukki waxtu ñeent yi ci nekk yépp nit ki lim ciy def da ci yéene ak jaamu yàlla mu nekk ak jaamu yàlla waaye mu jublu ci topp yonante bi ak liggéeyal ko it mu nekk liggéeyal yonante bi alayhi salaatu wasalaam noonu la sëñ bi doon doxe ba tey it ci wàllu niñ koy waxee ci murid yi muy liggéeyal sëriñ Tuuba it noonu rek la tekkiwul ne jaamu yàlla day lu beru ne nga xam ne boo nekkee ca jàkka ja di julli baa ngay jàng alxuraan baa ngay wor yaa ngay jaamu yàlla liggéeyal sëñ bi beru ne boo demee ci tool yi wala ci wooteb jumaa ja wala ci addi ja yaa ngay liggéeyal sëñ bi déedéet maanaam li ngay defal yàlla lépp liggéeyal sëñ bi la li ngay defal sëñ bi lépp jaamu yàlla nga xam ne kon nit ki waxtoom yëpp yëpp jaamu yàlla la war a doon ak liggéeyal sëriñ bi bu dee ci taal bi sëñ Tuubaa it waxtoom yëpp jaamu yàlla la woon ak liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kon day mel ni kin jëmale jëf ji rek mooy wutale tur yi waaw buñ ko jëmalee ci yàlla mu tudd ak jaamu jublu giñ ci jublu topp yonent bi ak liggéeyal ko nag mu nekk ak liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy tax nit ki waxtoom yëpp muy ak ay yëngutoom ak i dalam mën a nekk al ibada wal xidma moo tax nag sëñ bii taalif wax ne jaamu yàlla liggéey la liggéeyal yonante bi la safaan ba it lu wér la mooy safaan ba mooy te mooy liggéeyal yonante bi it jaamu yàlla ndax ku topp yàlla topp nga yonante bi alayhi salaatu wasalaam kon ak dundam moom sëñ bi dundam ku barkeel googu dafa mel ni ku doon bàggante ci biir serkal boobu ci diggante ñaari rëdd yooyu mel ni kuy dox safa ak marwa di bàggante rek mu ngi ci yàlla mi ngi ci yonante bi mu ngi ci yàlla mi ngi ci yonante bi génnut ñaar yooyu loolu moo tax mu wax ne dallani allahu ala muhammadi waqaadani muhammadun lissamadi yàlla tegtal na ma yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi it wommat ma jëme ma ci yàlla loolu buñ ko xoolee ci bëtub sariya ci bët bu gën a matale jullit ñépp ay dugg ci biir ndax suñ boroom moo joxañ jullit ñépp ne leen qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma man yonente bi kon suñ borom moo ñu joxañ topp yonente bi ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma moom moo ñu joxañ topp yonente bi waaye yonente bi it buñ demee toppi ko dañuy wommat jëme ci yàlla waaye duñu wommat jëme ci boppam yàlla rek la ñuy delloowaat ak lu ñuy may ngërëmul yàlla kon yàlla tegtal na ma yonente bi yonente bi wommat ma jëme ci yàlla mën naa nekk lu matal ci jullit ñëpp waaye nag toujours lu mel noonu day nekk ay darajaat comme wilaya ni mel nga xam ne alladina amanu wa kaanu yattaqun bépp jullit bu ragal yàlla rek am nag wilaya waaye nag dafa nekk ay darajaat yu rawante nga xam ne mën naa àgg ci rawanteeg diggante asamaan ak suuf lii tamit noonu la demee tegtal gi yàlla tegtal jullit ñëpp yonante bi yonante bi wommat leen jëme leen ci yàlla nag euh, nit ki pastéefam ak yitteem ju kawe ak tamit jagleelug yàlla nag gu ci rax loolu day tax mën na caa am wàccuwaay boo xam ne keneen du ko ca am ba tax mooy mooy tax moom mu wax ko mel ni moom dong moo ko jagoo loolu moo dal sëñ bi moom am na ci daraja yoo xam ne bokku tëkk ca nit ñi am ci lu kawe lool lool kon moo tax sëñ bi taarif jàllo ne ñaari baat yooyu te mooy al ibaadatu wal xidma day mel ni seen maana mën nañ koo tënk rek ci yeesal njàngalam alquran ak yeesal jàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale moom yi nga xam ne daanaka xawoon naa tàmbale ràpp loolu moo tax nee na dañuy fekk Sëriñ Tuuba ci li jiitu day njëkk a yittewoo ci euh, wane ne pas-pas bi wér bi nit ki war a fas mooy diine ca yàlla mooy lislaam kon ci yeesal gi foofu la mbir mi tàmbalee mooy fexe ba xamal nit ki ne li ñu war a jàpp nit ki ñi ñëpp war koo fas mooy diine ji wér ca yàlla te yàlla jàppe ko diine mooy lislaam rek كود جنن دين جو بوك يالا دوكو نانغو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه موتاخ سيرن بي واخنا يا سائلي عن اي دين يصطفى عند الاله هاك دين المصطفى ايقن بان الدين عند الله اسلامنا لا دين ذي ملاهي إذ كل من دان بلاه تريد وللجنان أبدا لن يريد سيدي بوخ يوم ميغا خامني يا ماي لاج دين موي دين جي تان jàppal diine yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da nga am yaqiin am lu la leer ne diine ca yàlla mooy suñu lislaam bii rek waaye du diine ab caaxaankat ndax nee na képp ku jàppee diine jeneen diine ju bokkut ak lislaam bii kooku neen des na ko dàq ci bunt bi yàlla te it du dem àjjana mukk kon diine ji wér mooy diine lislaam loolu mooy taxawaay bu jëkk taxawaay bu ñaareel bi it sëriñ bi ci ci ni muy yeesale diine te lépp di dellu ci al ibaadatu ملير وعليكم السلام بسم الله ملير علي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مو غنتي تمو مجتي يوم يالا يونيكو تي نيب لوريت القران كو ساخال وني يوننتي بي مو مو مجتي يوننتي لا يالا يوني تي نيب صاح واي او نيتام كيسه ولا تي بن جامونو كيسه لولو سيرين بي واخنا تي لو باري بوكنا تي ارسل بالقران خير مرسل هدى ورحمه وخير منزل li jumlatil xalqi musaddixan lima min kutubin xadun silat dama mu ne yàlla dafa yónni yonente bi gën jox ko alxuraan def ko muy ak njub ak yërmande ak li gën ci lu yàlla mos a wàcc ci téere def ko nag moom yonente bi muy ab yonente di jumlatil xalqi kaafatan la maanaam ci ñépp def ko it mooy koo xam ne téere bi mu indi day dëggal téere yaa nga xam ne ñoo ko jiitu woon ndax diine yépp ci yàlla lañu bàyyi moo tax téere yu njëkk ya la ca wér lépp na ci yàlla la bàyyi ko du wuute ak alxuraan rawatina ci cosaan yi mu ci wàllu pas-pas ak wàllu gëm-gëm donte wàllu sariya yi moom mën nañoo wuutente ndax wuuteeg jamono yeeg yooyu noonu waaye lépp lu nekk ci téere yooyu noonu nga xam ne am na ci yu fi des ba jamono bi lu ca nekk te ju yokk alxuraan rek luñ ca dugal la waaye bokk ca waaye moom musaddixan ni ko alxuraan waxee ba tey alxuraan da ni dëggal duñu wuute ci dara قال لسن بفاد لفوفي وخبتين يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارى توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباه أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن من ين يهودي نصراني نيولن عندك يونتبي عليه الصلاة والسلام ميغا خبن موغن تيونتبي tuub leen dellu ci yalla ta sakku ji ak njub ta na ngeen koy sakko moy nango top bi salallahu alayhi wa kon sëriñ bi mom yahuut ak nasaraan ak jenen diine ju dul islam rek wu ko muy diine ndax lolu moy jangalem alquran nga xamne kon ci jamono bi li tudde al ibrahimi yu salaas nga xamne day bëgg jël ñetti diine yoy jappé na ñetti diine yoy yépp wërna bu ci ne muy l'islam ak ah, nasara ak yahuut nit man na ci nek te nekk na ci diine ju wér nga xam ne daanaka ay xalaat la yoo xam ne politique moo ko gën a lal ci pas-pas loolu bokkut ak njàngaleem sëñ bi moom moom li leer ci lislaam mooy diine yi diine ca yàlla rek moom la doon feddale ba tey beneen bi muy bu noppee ci taxawaay bu ñaareel boobu noppi na ci war gin war a gëm ne lislaam mooy diine war gin war a gëm ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla yónni ci ñëpp waaye bu ñetteel bi mooy alquran mooy téere bi mujj ci téere yi nga xam ne yàlla doo ko wàcce muy fedd li la wér ca la ko jiitu woon ah, di wane li nga xam ne moom lañu war a jëfe ci wàllu texte yi maanaam mooy ci wàllu saahir waaye ci wàllu ruux mooy war ko war koo dund war a am yëg-yëg beeg sellal gi nga xam ne kon yi nit ki balaa wér day gëm yàlla ne mooy boroomam gëm yonente bi ne moom la yàlla yónni ci moom gëm ne alxuraan mooy tegtalam bi nga xam ne ci la war a sukkandikoo biir ak biti loolu sëriñ bi feddli na ko fu sëriñ bi wax ne allahu rabbi wa hudal islaami diini wa afdalul wara imaami yàlla mooy sama boroom njubug lislaam mooy sama diine ngeen ji mbindéef mooy sama imaam mooy sama njiit wa inna ni raditu bil islaami diinan bihi adimu fi dawaami gërëm naa lislaam muy diine ji nga xam ne moom lay diine woo mooy nekk sama diine ci lu sax ba faw ba tey mu wax ne wa bi hudal islaami diinan wa sabil wa bi muhammadin nabiyan wa rasul wa bi kitaabihi wa bil dalil wa qiblatan li gayriha lastu amil wax ne lislaam laa jàppe muy sama diina di yoon yonente bi laa jàppe muy ki yàlla yónni ci man téeréem bii di alquran laa jàppe muy sama tegtal néegub yàlla bii di baytullahi alharam moom laa jàppe maanaam mooy moom laa jàppe mooy sama xibla bi may jublu duma jëm feneen wax ne raditu bil islaami diinan laa yazul wa bi muhammadin nabiyan wa rasul gërëm naa ne lislaam mooy diine ji nga xam ne du deñ ba mukk yonente bi it mooy ki yàlla yónni ci ñëpp raditu bil qur'aani unsan wa dalil abuduhu jalla bihi ila rahil gërëm naa alquran muy sama wéttal di sama tegtal ma di ci jaamoo yàlla ba ba may faatu kon ñett yooyu moom noonu la jàppee ne benn mënu cee ñàkk léegi nag bi mu jàppee ne yooyu ginnaaw ginnaaw gëm yooyu ak fedd feddali ko it mu fas yéene nag yanu yitte wala mission yeesal diine jooju afaat ci ruugu bees ci njàngaleem alquran ak sunna ndax nee na tey jamono boo xam ne lu bari ci jullit yi wàccoon nañ yoon wi fent seen yooni bopp sànku sori dëgg-dëgg li jóg taxoon a jóg lislaam nga xam ne xott yi ci kaw muy formalité yi rek daanaka moom lañ gënoon a yittewoo ci ci jawhar bi muy ci dëgg-dëgg bi nga xam ne day gën a yittewoo wàlluk defar jikko yi nit wàlluk sellal nit ki ba dindi ci jikko ci moom jikko yu bon ngir mu gën a mën a borom yooyu mel na ni loolu xawoon nañ koo sàggane yittewoo forme bi ci kaw noonu rek sëriñ bi nag taxaw temm ci yeesalaan jàngaleen diine ba mu leer waaye delloowaat ci ruugoogu nga xam ne mooy li ci ab solo loolu nee na sëñ bi wax ne baqiyatul muksi li rabbiyal karim dhikran wa shukran wa sanaan la yarim baqiyatul muksi lahu walil kitaab walil xadiisi duuna zajrin wa xitaab li des ci samak sax samak dund yàlla moo ko moom ci moom laa koy wéyal ta mooy ci di ko tudd di ko sant di ko tagg waaye li des ci sama dund it yàllaa ko moom ak alquraanam ak xadis muy njàngale mu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tey ne diinun siwa islaamihi la yuxmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu diine judul lislaam yàlla gërëmu ko te it nag ci moom lislaam ci lañu yeesalewaate jàngale mi ràppoon lil mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu yéene naa ci yonente bi liggéeyal ko te li ma koy liggéeyale mooy yeesalaat sunnam ba tey wax na ne yabus uluma diini xatti mujaddidan bi nahji nabi bil xatti israsmuhu wafa maanaam mu ne samay mbind day sotti day yulli xam-xami diine yoo xam ne da cay yeesal yoonu yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne xawoon na rab kon li may bind yépp li ko tax a jóg rek mooy yeesalaat yoonu yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne jamono bi muy waxee rab na ñu bari wan ko gannaaw yeesal googu nga xam ne nag moom la fas ne jeexalug dundam na muy amee mooy jëfandikoo àtte sariixa yi ci ni ko alxuraan jàngalee jàppandu ci sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu wér di roy ci moom di dox ci aw ci wax ak ci jëf loolu nag danañ fekk sëriñ bi di ci taral di ko feddali bu baax a baax ci ay waxam ci war gi ñu war a topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci lim wax banaytu taati bi itibaaxi bi dikri wal xadiisi wal ijmaaxi sama topp yàlla maa ngi ko tabax ci top sunna wala bok mang ko tabax ci top alquran ak top sunna ak top li borom xam-xam yep mang ko waye du rek lo xamne damay yor sama yoonu bop di dem batay wax na ne minka arumul yawma an minka arumul yawma an akuna mimman abaw li ghayrika rukuna wa an utixaka bi nahjil mustafa sunnatihi al bayda ya man istafa wax suñ borom ne ko maa ngi sàkku ci yaw nga boole ma ñi nga xamne dañoo lànk ne duñ wuti kudul yàlla duñ jeng mukk jëm ci kudul yow yàlla nga boole ma yi nga xam ne dañ lay topp waaye jaare ko ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy sunnaam si leer wax ba tey suñu borom ne ko aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu maha alladi xafuuhu suxli wa yi jébbal naa sama bopp yàlla nga xam ne moom rek kay buur waye andak yonentibi sallallahu alayhi wasallam nga xamne jema gëstu aw yonam jema xegnatu ay tànkam fam tegon tànkam ma di sama tànk lol rek moy sama yitte moy sama aaju ba tey sëriñ bi waxne wasilati abduhu almukhtar sayyiduna wa huwa alladhi man aba taqdimuhu khufida nena sama wasila sama sëriñ moy jaamub yàlla bi di yonentibi sallallahu alayhi wasallam ta moy ki nga xamne ku lànk nangu ko jiital yàlla so fel فاورك كبغا كاوي دا نكوي جيتال واي كوكو جيتال دال دي سوفه صراطه هو الصراط المستقيم صراط من له لدى الله النعيم نانا يونو يوننت بي يونو يوننت بي جارون كو فاتك ساتانك تانغا كو سي صراط المستقيم بيغا خامني موم لا سوني بوروم دي واخ صراط الذين انعمت عليهم يونو غا ييغا خامني يالا دالينا خيوال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا seen yoon woowu nga xam ne moom la suñu borom firee siraatal mustaqima bari mu tudd ca suratul fatiha ah, loolu rek mooy topp ci yonante bi salallahu alayhi wa sallam ba tey mu wax ne nawaytu kawni ya abdallahi mumtasilan lil amri taarika nahrin xaysuma xutima mustamsikan bi rasulillahi sayidina muhammadin man mahal ahzana wa wajama nee dama yéene nekk jaamu bi yàlla boo xam ne damay topp ndigalam di bàyyi ay teram waaye jàppandu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad mi nga xam ne moo far yépp njàqare wax ba tey ne wa bin nabii habliya taxalluqa bil xuluqi al asimi daban mushfiqa وليهب بجاهه المتابعة قولا وفعلا رب والمصارعة هب لي متابعته في القول والفعل والخلق يا ذا الطول mu ñaan suñ borom ne ko nag ma may ci daraja yonente bi ma jikkowoo jikkoom yu kawe yu tedd yooyee nang ma may ci darajaam tamit man topp ko topp ci gannaawam ci wax ak ci jëf nang ma may ma topp ko ci wax ak ci jëf ak ci jikko sax yépp rek moo tax nag mu ne kon moom ay waxam ak ay ñaanam ak xiram gu tar lépp da koo jëmale woon rek ci topp yonante bi ci wax ak ci jëf ak ci jikko waaye loolu lépp nag day wane moom sëñ bi dundiinu lislaam dundin wu jullitewu lislaam wi nga xam ne moom la dund ci kaw suuf waye loolu batay manam lim wax ne ay waxam ak ñaanam ak toroxlam yépp dafa jëmon ci top yonente bi ci wax ak ci jëf day melni adresse la bo day wone yoonam ci jaamu yalla manam mom mom wan wan yoon la topon ci jaamu yàlla mooy dëppoog yonente bi alayhi salaatu ci lepp melni day bind bo da koy sax taalibe yi nga ne jaayante ci jëf ndigal bayyi téré ñu ne fim jaar te bëgg ñëpp jaar fa mooy dëppoog bi ci wax ak ci jëf ak ci jikko kon moo tax mu ne mën nañoo wax ne sëriñ bi dekkalaat lislaam gi nga xam ne moom la taxawee ba tey mën nañ koo tënk ci ñetti tomb yoo xam ne yu am solo la te fés ci taxawaayu sëñ bi nee na ñetti tomb yooyu bi ci njëkk mooy salaabatul imaani wa sabaatu ala al mabda gëm yàlla gu dëgër waaye nag sax ci principe gëm-gëm boo xam ne dara mënu ko ca wàcce moo tax mu ne sëriñ bi yeddu ku yedd ak meruk kuy mer mësu koo mësta dox digganteem ak lim war a def te yàlla tax nga xam ne ci dundam dengi dengi wala dellu gannaaw su mbir xasee aju ci loo xam ne yàlla dafa bëgg ñu jëfe cay ndigalam bàyyi ñu bàyyi cay tereem moom jeex na amatul lum cay dengi dengi amatul lum cay dellu gannaaw lu ko ca fekk baax na loolu nag moo tax sax nangu wutoona may tubaab yi dara lum tuuti tuuti loolu moo tax buur yi àdduna yi nga xam ne ñoo fi nekkoon nangu wutoona jëflanteeg ñoom ci di leen waaye falal la nekk wala nanguwutoon a jéem a amuk juboo ak noonu yàlla yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom ñëpp dafa jàmmaarlook ñoom ci fit wu dëgër ak ci dogu bu wér moo tax mu ne ba tey ndigali gouverneur france bi nga xam ne moo fi nekkoon xaw ma gouverneur général bi nga xam ne moo fi nekkaloon France ndigal lim ko bëggoon a jox ci mu signé accord boo xam ne wala mu signé kayit woo xam ne daal da cay dañ cay bëgg a saxal ne ñoom ñoo yilif réew mi waaw ah, nga xam ne kon day mel ni liñ ko bëggoon a signé lool luy wane ne ñoom tey ñooy borom réew mi kenn waratu koo xëccoo ak ñoom loolu sax da koo bañ bañ ne du saafoonteeg ñoom sax ci seeni loxo ndax jàpp ne ñoom ay sobelan ndax ay yéefaran te moom dafa laab ndax lislaama ko laabal noonu la bañee tamit ne du nekk mukk attekatub kenn ci buuri kajoor yi muy ginnaaw bi waajuram faatoo tañ bëggoon ko def muy attekat ca wetam waaye moom mu ne dara luy nuru ak buur yooyu nga xam ne dañoo jeng doon tooñ doomu aadama yi daal moom du ko def te nee na lii lépp nag mi ngi xewe woon ci jamono boo xam ne tubaab bi ñi ngi fi woon képp ku jéem a opposé wu ku jéem a jàmmaarloog ñoom ñu di la not ñi nga xam ne ñooy jéem a jàmmaarloog ñoom ñu di leen terroriser di leen tiitloo ci xañ leen seen wërsëg waaw di leen teg ay daan yoo xam ne jamono boobu daanaka ñoom Euh, mel na ni daal yilif nañ réew mi yilif bu toll ni kuñ bëgg nga ñàkk ci coobare yàlla man ngaa ñàkk ndax say toolu bayukaay ñoom ñoo ko yilif boo bàyyee ba noppi la ngay jaayee ko jënd daanaka ñoom dañ ci am baat bu baax a baax ndax boobu ñoom ñoo ne woon ñooy borom réew mi ñoo yilifoon nit ñi loolu nag tax na ñu fexe ba nit ki gàllankoor ko teg ko ay daan yoo xam ne dana tax mu tumuraanke ab dundam jafe ci wàllu wërsëg yomboon na leen loolu taxoon na ku bëgg a jàmmarloog ñoom daanoon na teg ko ci yu mel noonu loolu mi ngi am ba jamono bi nga xam ne ku bëgg a dund dëgg-dëggi lislaam wala nga bëgg a opposé wu ci yenn ci xalaat yi nga xam ne moom lañ bëgg a doxal ci àdduna sax da ngay gis ay daan yu bari yoo xam ne dañ la koy teg ci wàllu économie nga xam ne boo ragalee tuuti daal di dellu gannaaw loolu daan nañ ko jéem ak sëñ bi kon loolu niñ ko daan defee niñ ci daan xuppe ñeneen ñi daan nañ ko jéem ak sëñ bi waaye sëriñ bi moom jàpp fi mu jàpp rek lànk ne toroxlu lu ko yàlla du ko def ndax li ko ci dimbale mooy ñett yi nga xam ne ñoom moom lañ mën a jekkoo moom yàlla da ko caa seetal mooy moom bëggutoon seeni alal kanam dund ak bàyyi la yamale woon wàccuwaay bi mu am ci société bi daraja yi ñu ko jox am ko ñàkk ko la yamale woon te ñett yi mooy yi nga xam ne mooy daan yi gën a mën a teg nit benn ñu fexe ba ak dundam metti ci wàllug économie wàllug wërsëg wala boog ñu teg ko ay daan yu tar ci wàllug yaramam ak yooyu ba bakkanam man caa des wala ñu fexe ba ñàkkal ko fayda ba dootul yi benn wàccuwaay ci kanam nit ñi ci kanam société bi ñett yi yëpp dara saf ci woon sëñ bi moom yàlla dong nga ko ñoroon alal tax ko woon a jóg faalewutoon dund ak dee dara ju ko askan wi jox ak ñu bàyyi la yemale woon loolu nag moo tax mbir mi xawoon a jafe ci ñoom waaye taxawaay boobu nga xam ne moom la am nag teg na ko lu bari ci ay coono ak ciy jafe-jafe waaye fekk na moom loolu lépp waajaloon na ko xamoon na lii taxawaay bii mu am conséquence maanaam tartar yi nga xam ne mën na cee juddoo li ko ci mën a fekk lépp xamoon na ko moo tax nag mbir ma woyef ci moom muy dàq giñ ko dàq génn giñ ko génn ci réew meek tumuraankeel geeg mbugal yu tar yi nga xam ne moom lañ ko doon def yépp woyefoon na ci moom ndax moom fa saxaaba yi nekk fa saxaaba yi nekkoon ci ixdal xusna yi moom la doon xaar mooy bakkanam des ca mu amee daraja yi kun ci yoonu yàlla wala boog mu amee ngañaay boole mhm, kon ñaar yooyu rek xamoon na ne moo ko ci mën a fekk te ñaar yooyu yëpp ngëneel la daraja ju kawe la moo tax nag dara tiitalu ko woon yàlla defal ko nag bu mujj boobu te mooy ngañaay loolu nag sëriñ bi taarif wax ne kon murid yi nga xam ne ñooy ay taalibe moom sëñ bi waaye rawatina ñiy kilifa ci ñoom war nañoo fàttaliku bu baax taxawaay lislaam taxawaay yi nga xam ne yu yëkkati yu teral lislaam la war nañ koy fàttaliku taxawaay yi nga xam ne da doon bañ benn autorité boo xam ne buy jóge ci biti la bëgg a ñëw yilif leen wala benn atte boo xam ne bu jeng la bu wuteeg attey lislaam bëgg leen a yilif taxawaay yi ci sëñ bi taxawoon ci lànk ko war nañ koy fàttaliku rawatina nag kilifa yi nga xam ne kon nee na topp ci gannaaw nguur goo xam ne guy tooñ la jege jege lu buuri àdduna yi ak noppi ci jalgati nga xam ne moom lañuy ñuy jalgati ci ak doomu aadama yi ak askan wi loolu lépp bokkul ci meloy murit bokkul ci meloy taalibe bi nga xam ne day roy sëriñ Touba ndax sëñ Touba moom bañ loolu daanaka lu ko dal moo ko ko tegoon kon loolu mooy bu njëkk bi mooy am gëm-gëm lim gëm jaral ko lu ne bu ñaareel bi nag mooy al ixlaasu fil mooy sellal jëf moo tax sëriñ bi wax ne lii xutta kaw nii saadiqan fi qawli wa amali yaa quwati wa yaa defal nga ma may ku dëggu ci samay wax ak samay jëf ndax yow yaay sama pexe yaay sama kàttan maanaam ma pexe amu kàttan ci rek laa wéeru nga defal ma nag may ku dëggu ci wax ak ci jëf ci lépp moo tax mu jàll ne sëriñ bi dafa nekkoon koo xam ne dafa dëggu ci ay wax sellal ay jëfam ci jamono boo xam ne ñu baree bari dañ doon gisal ak di naafeq ci seeni jëf nga xam ne ak ciwte ak intre personnel daanaka moo nekkoon moteur bi nga xam ne ñu bari moo leen di pousser ci ñu jëf mooy yëngal seeni moo leen di tax a def ak tax a bàyyi loolu daana tax sax léeg ay xëccoo ak i xuloo yu tar daan am léeg-léeg daana metti ba mën naa àgg ci sax ay turam te ci rek diwa jiite ci jàkka ji wala diwa fii noddu wala diw la ñuy def muy sëriñub dëkk bi wala diw la ñuy def muy àttekat bi yu mel noonu léeg-léeg daana am ay xëccoo ba àgg ci deret tuuru xëccoo yooyu li ci gën a bari neen dawul nekk sabab yoo xam ne sababi diine la waaye li ci ëpp rek daanaka ci ay considération ci ay mbir yoo xam ne daal bàyyi xel nit ki dara ji mu am ci société bi wàccuwaayam moom mooy kan euh, ci wan askan la bokk walla ay intérêt personnel yu mel noonu rek moo daan waral xëccoo bu waaye dawul nekk sabab yoo xam ne diwa ëpp xam-xam wala diwa ëpp diine diwa gën a ragal yàlla moo tax moo gën a yey ci jiite loolu néew na lu mu ko daan waral waaye intérêt ak kiiwte rek daanaka moo daan doon li leen buuse ci xacco yu mel noonu sëñ Tuubaa nag bi mu ñëwee ci tarbiyab sufiyanke bi nga xam ne moom la indi yàlla defal ko bu baax mu am najaa mu am lim bëgg daal ci jëmbat ruuk ëppalante rawante ci murid yi ko njëkk a topp waaye nag ëppalante boo xam ne ijaabiya lay doon ëppalante boo xam ne bu rafet lay doon ndax ëppalante ak yëg tamit da nga ñee sa morom waaye doo ko iñaane ndax ëppalante dafa am ñaari façon am na jongante rawante boo xam ne ci biir ay nit ñoo xam ne dañuy nekk ci lu baax kenn ku ne wan wan sa moroom ne ko yow doo ma gën a baax doo ma gën a farlu ci liggéeyal sëriñ bi ngërëmul yàlla li ngay sàkku ni nga ko bëggee laa ko bëggee ngeen àndandoo ca loola nga xam ne ëppalante bu mel noonu dimbalante lay jur day waral ñoom ñuy dimbalante ci seen biir soppante waaye duñu añaanante bokk ak nag ëppalante boo xam ne daraja moo koy lal kenn ku ne wan sa morom ne maa la tiim maa la raw maa la war a jiitu waroo ma nga xam ne boobu moom li muy jur rek daanaka mooy xëccoo ay ko xëccoo ay njiit ak yu mel noonu léegi nag sëñ bi moom réussir woon na ci murid yi mu def ci ñoom ruuxu ko rawante ci yàlla rawante boo xam ne bu baax lay doon bu yàlla gërëm lay doon nga xam ne moo tax neewaana ay xëccoo ci wàllu postu social wàllu maanaam daal ay wàccuwaay ci ci nit ñi wala ci ay poste yoo xam ne ci wàllu diine la loolu néew na lum daan am waaw moo tax nag mu ne kon taalibe yooyu nga xam ne dañ leen a xamoon cig joxe cig tabe ci sa bopp gënal sa moroom gënal la sa bopp ci nangoo joxe sa bakk nag la nga am lépp ngir intérêt say mbokk ci taalibe ak ci lislaam ak ci nite sax ba noppi nag boole kook nukkuraanu zaati boole kook fàtte seen bopp taalibe yooyu sëñ bi loolu mo nekkon seenu melo moy dañu nango joxe tabe nekk ño xamne liñ am lepp man nañ ko joxe ngir rek lu jariñ seeni mbokk mo xam mbokk ci talibé la wala mbokkum diine la wala mbokkum doomu adama sax ba nopi nak boole ko nak fatte seen bopp toroxlu gu met duñ gis seen mbop mukk ci jëf yoyé lool nak motax señ bi tarif jall ne bokk na ci li nga xamne dana met, lool ci jamono bi moy mabda bobu principe bobu nga xamne lu lu sori la manam lu ciosanu la ci bepp jëf bu ñuy askan lislaam te mooy jëf li nga war a def lépp ba noppi boole koog bañ a gis sa bopp loolu nee na jamono bii muy waxee moom daanaka xaw naa nëbb ci suñ société bi nga xam ne li ci ëpp ak kiiwte muy daraja ak intérêt personnel daanaka mooy mooy nekk jubluwaay bi tax nit ki di jëf rawatina sax jëf joo xam ne dañ ko askan lislaam nga xam ne léegi dégg leen ma ak gis leen ma daanaka mooy poussé nit ki ci mu jëf jëf ju baax loolu nag day jur ab ëpplante ab rawante jur ak noono jur ak mbañeel jur ak kañaan jur yu baree bari loolu nag mu ne bokk na ci di ko gën a suuxat nag li ko gën a dëgëral yitte woog ñu baree bari ci njiiti diine yi lu jëm ci wàllu matériel loolu tax na jubluwaay bii feeñ léegi nga xam ne gis leen ma dégg leen ma rek daanaka mooy tax nit ñi jëf loolu gën a dëgër loolu ku seetlu ci suñ jamono bii da nga ko gis bu baax léegi néewaana ku nangoo jëf-jëf ju baax te kenn du ko photo mbala boog ñu caméra ko ñëpp di ko gis loolu nag tekkiwul ne képp ku jëf-jëf ju baax ñu foto ko wala ñu caméra ko rek sellaloo nit mën naa am jubluwaay ba mu am ci loolu mooy nit ñi mën a yëg ne ñiy def lu baax ñu ngi fi ñeneen ñi nga xam ne dañ koo am man ko te defuñu ko mën a roy ci moom def ko loolu tiyaaba lay doon moom waaye daal bu fekkee gis leen ma gi moo tax faaw day woy ay caméra jël ko wala mu woy ay photo ñu jël ko nga xam ne ñami jox jëf ju baax jooju daanaka dana leen toroxal wane seen image ñëpp di jàkkaarloog moom nga xam ne dana nekk toroxtaange goo xam ne lor ju metti dañ loru rek moo leen ko tax a waaye nit daawul nangu lu mel noonu loolu siiw na ci jamono bi te nekk loo xam ne sëriñ bi moom da koo dindi woon ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom waaye bu ñetteel bi nga xam ne moo mujj ci ñett yi muy wax mooy xubbul amal ginnaaw bi mu tuddee sax ci gëm-gëm bu dëgër waaye bi ci topp mooy sellal jëf la doon wax nii bi ci topp nag mooy bëgg bëgg liggéey bëgg jëf moo tax mu ne njiitul yoonu murit damay sëriñ bi dafa yëkkati wàccuwaayu liggéey jox ko daraja yu kawe ba teg ko ci biir maanaam bu bo yóbbu ko ci wàccuwaayu jaamu yàlla nga xam ne lim yaroon taalibeem yi mooy nañuy liggéey ci seeni xel ci seen yaram nangoo sonn nangoo fàggu maanaam nangoo liggéey ba nga xam ne dana tax ñu nekk ñu tedd ñu am dignité ñoo xam ne seen ñaqu bopp ci lañuy dunde lañu amee ci liggéey boobu it ñu mën koy dépense ci yoonu yàlla nga xam ne sëñ bi dafa jël jëf ju baax moo xam ju feeñ la wala ju nëbbu def ko muy benn xaaj boo xam ne day mottali jaamu yàlla yi nga xam ne mooy saxaayir yi saxaayir yi mooy jaamu yàlla yi nga xam ne mooy ràññeeku ci lislaam loo xam ne mënta ñàkk bu jullit ñi xëyoon defuñu ko sax foofu dañuy jàpp ne lislaam amatu fa muy lu mel ni julli wala woor woor wala asaka wala aji màkka yooyu mooy jaamu yàlla yi nga xam ne ay saxaar lan léegi dafa jël liggéey nag muy def ko muy jaamu yàlla bi nga xam ne day mottu lente ak moom te loolu mooy dëgg-dëgg njàngalem lislaam moo xam liggéey ba ci mbay la ci suuf wala ci commerce ci lay juddoo ci suuf wala ci métier ci xeeti métier yépp li feek daal liggéey booba ña nga cay sàmmonteeg attey lislaam di ca tënku ci fam ñu ca yamloo rek loola moom day jàpp ne jaamu yàlla gu kawe la loolu fes na ci njàngalem sëñ bi mu ne nag jiitu loolu nag day mel ni kilifay diine yi li ñu di tawaakul muy ak bàyyandiku da na daloon nga xam ni ci lii bàyyikoo ci buuri àdduna yéeg ak ci sarax yi bàyyikoo ci borom alal yu ragalut yàlla yi daanaka ci loolu lañ daan dunde Lol nak da dan daan yóbbe atte yi nga xam mom lañuy la joxe ak fatwa yi nga mom lañuy la joxe faaw nag dana dëppoonteeg bànneexi ñooñee nga xam ñoo leen yor ndax niko wolof di kula ambal sa sangal ambal la sa kër sa kon ñooñu nga xam ñoo leen yoral seen lepp dana tax léegi atte yi nga xam mom lañuy la atte ak fatwa yi nga xam mom lañuy la def da top nak ñaar ya bëgg bëgg buuri aduna yoy ak bëgg bëgg borom alal yoy sax motax mu ne taxawaay boobu nag nga xam ne day mel day fal buuri àdduna yi lu ñu bëgg ñu fekk leen ca luñ bëgg a daganal ñu daganalal leen ko loolu dana tax nag nit ki sikk sàkk ci ñii iska ñu sellal seen diine ngir yàllal la ndax li gënoon a jaadu mooy jéng gi nga xam ne moom la buur yooyu jengoon di tooñ ñoom ñu jàmmaarloog loolu fexe leen a delloo ci ak njub ak lu leen ci mën a fekk bañ leen nag di leen ko barkeelal ak di leen daganalal seen àtte yu tooñ loolu mooy li jaadu waaye nag lil asaf sëriñ bi jàll nag ne bokk na nag ci li metti lool te doy war mooy doxaliin woowu nga xam ne moom la ñenn ci nit yi diine yi amoon te sëriñ bi ñëw corrigé ko woote ci liggéey day mel ni jamono bii mi ngi mi ngi fi ba tey nga xam ne nee na lu ëpp ci kilifa diine yi nekkuñu ñoo xam ne rek dañ leen a bedd ci àtte yi sori leen ba mënatuñoo am benn jeexital ci dundum nit ñi nga xam ne ñoom daa mel ne dañ naa leen yéen moom li ngeen séq ak nit ñi mooy ñaanal leen nekk ca jàkka ja ak yu mel noonu waaye dunduk nit ñi nag jeexital ci ak wan leen fu ñuy jaar ak yu mel noonu amu leen ci benn kii comme ni ko niñ ko xamee ci politique bi ni muy demee leen nee léegi yematum ci loolu sax waaye dañ caa boole nag far di jege-jege nit yi diina yooyu ragal ragal leen ba nga xam ne ah, dana tax luñ bëgg ñu mën leen koo daganalal lii nag kuy topp jamono ak ni mi doxee da nga di xam ne lu leer la te bari rawat na ci réewi lislaam yi gën a mag sax dana bari boroomi xam-xam yoo xam ne mën nañoo daganal tey weer ci kanam ñu araamal te lépp rek kem na buur ba bëggee mu dagan nam bëggee mu araam ca lañ koy lal kon nag mu ne jaadu na ñu xam ne sëriñ tuuba moom dafa mel ni dafa indi benn fipp bu am doole ci lislaam wëlbati mbooleem yim jamonoonteel ci ak yàq yi nga xam ne moo fi nekkoon mel da ko jallar bi te loolu moy lu melni mbolam taqalit mbolam ciosan yi nga xam da fekkon ñu lu ko tam nek lo xamne dine, dafa setal diine da ko seetal wicc ba mu set ci diine mbolam yi nga xamne ay desit la won yoo xamne ne top te ceddo gi nga xamne mo fi waralon mu nek fi ay intérêt personnel tamit waral mu nek fi ñi nga xamne it sànkuteeg nit ñi moy tax ñu mëna dund tax ñuy sank nit ñi yépp tax euh, rax mom yépp nek fi nafiq yi nekk fi katu xalam nek nekk yep taxon na diine ji am rax ci ay aada ak ci walu ni ñuy jëflanteeg bu réeg yooyu bari won ci sëriñ bi nak dafa mel mom dafa fippu jamar lok lol lepp lolou moy limi wax ne hadamtu batilan bi haqqin fa wa wali ilahi ka sa saqihi dahaq caaxaan mabna ko ci deug caaxaan nga dal di nax say manam dal jele na fi samp fi deug rek ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سوني برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي damit أريد day fedd li loolu nga xam ne delloo naa ci barke mbaaxug yàlla ci yonente bi sallallahu alayhi wa ña nga xam ne ñoo wuute woon ak dëgg tontu naa leen tegaat leen ci yoonu dëgg suñ borom seetal na ma ci bokkaale ci naafeq ci mboolem yooyu nga xam ne am la woon léegi nag moo tax moom mi taarif mu jàll ne kon ñun sunub liggéey tey ñun murid yi mooy dañoo waroon dañoo war a jéem a sàmm fipp boobu nga xam ne bu tegu ci lislaam te sëñ bi indi woon ko gën koo yeesalalaat ak ndawam gën koo puus mu gën a jëm kanam te loolu niñ koy defee mooy jëfe njàngalem sëriñ Touba teg suñu tànk ci siraatul mustaqim bi nga xam ne moom la rëddoon dox ci moom ci boppam taalibeem yu mag ya dox ci ñi nga xam ne moo leen jàngal yar leen te nee na ba fii mu ne ay doomam di ci dox ndax jamono bi muy taalif doomi sëñ bi yu bari ñu ngi dund ay doomam di ci dox tànneef yi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ci yoonu murit ak taalibe yu baree bari tamit di dox ci yoon woowu lool daal moom nañu war a gën a suuxat fexe ba di ci dox ndax kan nee na njàngale moom moom tumuraankewut ndax sëñ bi bind na ko ci ay xarimam ci ay taarifam yim waaye ak yim wesar mag ñi ko fekke woon tamit di ñu wóor nga xam ne ñoo jàkkaarloo moom muy def nettali nañu ko dégg nañ ko muy wax ñu jot li ñu ko ànd nañu ak moom ab diir nañ àndee woon ak moom yépp jottali nañ ñu ko te ñoom ñëpp li ñu saxal rek mooy ay waxam ak i jëfam lépp da doon jëmmal alxuraan di firi texte yi alxuraan firi firi boo xam ne luñ mën a teg loxo la duy dund la maanaam nekkul loo xam ne théorie la ñu koy jàng ciy téere kese waaye dañ koy dund da koy dund moom ci oppam di ko def ci nit ñi day mel ni ay waxam ak i jëfam lépp rek noonu la demee woon alxuraan juy dox dal woon mais nag kon li ñuy mottalee bunt bi mooy li sëriñ bi waxal boppam ne lii xutta kaw nii mursadan wa murshida wa bi xilaamiya tubiinu rashada def nga ma may ku jub tey jubal te sama xalima nga di ci leeral sa njub loolu tënk na lim doon wax léegi mooy sëñ bi ci boppam alxuraan ju dox la woon ci njub rek la nekkoon waaye it loolu ci la doon yar mooy ci lim ne ko def nga ma may jubal waaye loolu it defu ko bàyyi waaye da koo bind ngir ñii ñëw ci ginnaawam ñëpp mën koo jariñoo wabi mooy wabi xilaam yee tubinu rosada sama xalima ci ngay leeral sa njub ba tey sëriñ bi wax ne wajaxal jamihama bihi lafastu fii ka wa fiihi rabbi aw katabtu ibadatan maqbulatan mardiya indaka summa indahu zakiya warzuqni warzuqni alyawma bijaahihi alasim tarkaltifaatin aabidan huna xadim warzuqni alfanaa fiika summa fii wajaxal ni bi bijaahihi nabi suñ boroom na nga def mboolem li ma wax ak li ma bind tam jëm ci yow ak ci yonante bi def ko muy jaamu yàlla gu ñu nangu gu ñu gërëm yàlla gërëm ko yonante bi gërëm ko def ko muy lu sell nag ma defal ci daraja yonante bi ma bañ geestu lenn lu dul yow dafa may jaamu yàlla di liggéey kat yonante bi nag ma defal ma jeex tàkk ci yow jeex tàkk ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da nga defal ma yëkkatiku daraja kon foofii la jeexale buntu boobu nga xam ne moo nekkoon ibadatuhu wa xidmatuhu ñaar yooyu la ko adressé woon waaye dafa mel lim lim doon wax lim gën a jëm mooy leeral nan ci ban yoon la doon defe loolu te mooy rek yeesal njàngalem alxuraan yeesal njàngalem sunna ci biir yeesal njàngalem alxuraan njàngalem sunna am na ñetti mabda yoo xam ne tudd na leen yoo xam ne yu ràññeeku la ci sëriñ bi te mooy am pas-pas bu dëgër boo xam ne dara mënu koo yëngal waaye amuk sellal goo xam ne yàlla rek kay tax a jëf ba noppi fàtte sa bopp waaye nag bëgg liggéey nga xam ne doo bàyyee sa àdduna ak ñeneen ñi ba tax ñoom nañ bëggee diine rek noonu nga leen koy yombalale ñett yooyu fees na lool ci bund bind bind bi doon jàng tey foofu la ñuy taxaw nag bu ñëwaatee dellu ci xidmatuhu li rasul sallallahu alayhi wa sallam hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri qadimihi wa sallama taslima